alal jiin bismillaay ma dee ci door maam góor gi njaay sutub maram jiin bàyyi maam maram njaay réew maa ngi may soow te ku réew mi soow booba danga siiw bàyyi ndey ak sa njaay maa yàgg ci coow ndaara yàgg ya na maa jiin Siteu ak Modou Lo tamit taxaw Mansour Ba ñu koy félicité mi ko taxawal ak waa jàmbaar boobu tamit wax ji bari na ci sa tawaru ko na bëreeg moom Modou Lo da waroon na jël tafaatin jàppal bàyyil jooju. Modou booy tànn ku muy bëreel. Modou tànn ku ko ne. Modou Lo kenn du ko choisir al adversaire c'est le roi des arènes ku mu sentir rek mu ni diw laay bëreel nañ ko boole diw te boole wuñ ko ak cuune. déedéet. si tadu cuune. cuune. Lac de Guiers ñaata mbër ko daan. benn muy Eumeu Sène keneen daanu ko moo daan ñëpp Siteu ñëw ci Lac de Guiers Lac de Guiers fexewul ba Siteu yaramam laal suuf kon Siteu mbër la. kon yow ba gëm nga ne sita am na argument yu mu bëreeg muut. combat bu may validé la komba bu nara neex la komba boo xamante ne la suñ ci yeggee incha allahu rabi.

nit ñu baax ñu wuyisu ko yalla jappale ko journée bi neex ba ñepp diko waxtane lool la koy ñaanal. melni buma setlo tamit yeen en tant que jeune muy yow muy Mansour muy bay ndjay yeen ñepp ay jeune nga ak ñeneen ñi dess des mënu ma leen lim ay ñom fall ndjay bari nañ sha allah mu melni mbeur mbër presque jox ngeen leen combat. mais loolu dañ koy yalla ginaaw yalla li lii liggéeyu Père Gaston la au passage ñukay ñaanal mu jog ci jamak salam mu tane guddu fan. ndax nit ñi suñu demee ba am fitu tëgg mooma donc y' a plein de jeunes léegi ñoo xamante ni ñu ngi tëgg ay combat nañ ñaanal ku nekk rek képp combat boo tëgg rek nga am ci réussite ndax jublewuñ ci lenn lu dul euh, jëmale làmb kanam jublewuñ ci lenn lu dul nit ñi di ci gis seen bopp nit ñi di ci am xaalis ñi emploi yi am emploi indirect yi am xam nga c'est que làmb dafa baax dafa baax ci suñu dëkk bii ndax day tax euh, day tax lamb ji gëna yok te képp kuy xeex lamb nak vraiment war nañ wax ak yow parce que ñun lamb lañ am lamb su amé dëkk bi né teg ciow du am stress wàññeeku kon ngàcce nga lamb lamb. Makan content merci beaucoup Babacar. yalla sa jamm yaa. amiin yaa rabbi jaajëf. Salar Diène. maram jéen bàyyi maam maram njaay riw maa ngi may soow te ku réew mi soow booba danga siiw bàyyi ndey ak sa njaay maa yàgg ci coow ndaara yàgg na maa jiin